bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalatu wassalaam ala almabuuti rahmatan lilaalamin sayidi alxalqi ajmain sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina abilqasimi almustafa muhammad wa ala ahli baytihi alladina ixtaarahum allahu wastafaahum wa jaalahum qudwatan lil aalamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki auditeur u rajo Mousdahir FM 93.2 di kàddu njabootu Yonent bi tey jubee fii ci complexe imam ali alayhi salaam zac mbaw Dakar di jube itam ci 93 point 8 di Sahara FM di kàddu njabootu Yonent bi ci Kolda ak li ko ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ziar ci weeru bi ñu génn di balu àq di bale di ñaan sunu borom mu boole ñi baal waaye di ñaan itam sunu borom ne ko bu ko def muk muy sunu mu jóg weeru koor di jël nuyu beeg ziar bi yépp teg ko ci loxol Mawlana Chérif Mohamed Ali mu yeggali ko fi nga xam ne moo gën a kowe te mooy ci sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa itam ci ki nga xam ne moo ko nekkal ci jamono muy imaamul mahdi ajalallahu farajahu ko baaxee woon di daje ak yéen mu amoon bu ñu fi mu jëm ci wàllu juli ndax comme niñ ko xamee ñun ñëpp julli wala mboolem jaamu yàlla yi niñ ko fi faral di fàttalante ay wasail lañu waaye nekkuñu ay gaaya cest ay jumtukaay lañu waaye du wuñ jubluwaay jaaroon ci julli defoon ci ay daje yu xaw a limu bañ bi ñu mujjee def jamano ñëw nag mu am yeneeni xew-xew yu nekk ci sunu kanam ñi tënkoon ku foofa ne bu ñu génnee ci yooye dellu ci dellu siwaat booba mu ngi ko ci sunu sunu daje bi nga xam ne moo nekkoon cinquante deuxième daje juróom fukk ak ñaar yoo xam ne yëpp duggoon nañ ci di wax ci wàllu julli ak li ci aju waaye itam comme ni nga ko waxee woon moo du diin moo tax lañ ci bind la ci yarkat ya wax la ca urafaa yi junj na lool ñun nañ ci ku demee nii imaamul Xumayni ridwanullahi alayhi ci téere boobu muy tuddee sirru salaat wala al adabul maanawi li salaat Ali Koraani bind na ci moom ab téere bu boo xam ne ëpp na mille pages waaye alfaydul kashaani mi dem bind na ci ci asraaru salaat ak ñeneen ñu bare bare bare ci wàllu wu nekk ak kuréel gu nekk ci julli yi waxoon ne bon julli moomu day dugg rek ca kàddu ga jib ñi ne xadis ñi wax leneen waaye en tout cas ci mu nekk xadis muy la wax ne kaddu ga wax ne ñu askanale ko ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi aqwali wa tariqatu afaali wal ba hadis ba pare sharia daal mooy li ñuy jàng wala li def ci cër xaqiqa mooy lañ cay jëlee pour jikkowoo ko di ko doxal sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa bopp ak sa digganteeg sa morom lam lay jural nag loolu moom mooy tamit tuddee al xaqiqa bon a tariqa mooy jëf ja waaw mooy lañ cay ba jëfee ko ci sunu diggante ak li nga xam ne mooy sunu digganteeg sunu borom sunu digganteeg sunu morom sunu digganteeg sunu li ñu demee ci yeneen boroomi xam-xam yi dañ koy tuddee ñi ni mooy li ñu tuddee al irfan al amali bon mbir mu nekk rek ci julli googu wala ci jaamu yàlla gu mën doon ay junj la wala boog nga ay code la yoo xam ne dafa boo ko bësee da ci am yum lay yóbbu yu baree baree bare ci ay teggiin ci ay martaba ak ci daraja waaye comme ni ko xamee ñun ñëpp mu ne lépp lu doom aadama bi di def na fekk jubluwaay ba nekk jaaree ci pour am ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala lu jàng ma rëy rëy lu jaamu ga bari bari lu yëngatu ba e, e, mag mag mag na fekk ne rek jubluwaay ba mooy fexe ba génn ci karkaasu sa bopp waaye lépp jébbal ko sunu borom subhanahu wa taala moom rukkoo moomu nag ñu bëgg a waxtaani ci géew boobu lay dox bon arruko gannaaw bu ñu génnee ci sunu dajee bi wees nga xam ne ñi ngi ko jagal suñu dajee bi wees nga xam ne ñi ngi ko jagale woon njàng minit di jàng fatiha ako sar ci biir julli jotoon nañu ànd ak yéen jàng suratul fatiha bi nga xam ne mënu ci ñàkk waaye dem ci suratul ixlaas ya qul huwa allahu ak la ca ci suratul kaafiruun ak suratul qadr tey nag ñu bëgg a ñëw ci waaye dañuy fàttali balaa ñuy dem ni yi nga xam ne moo weesu woon ci ay bind ñu bokkoon ak yéen seq ko ku ci bëgg dellu si delluwaat man ngay dem ci TV Ahlul Bayt liggéey ci YouTube bi TV Ahlul Bayt dañ ko fekk wala boo duggee itam ci sunu page Facebook moom itam dana am loo ci am Mourtala Gaye boo fa demee ci sunu page Facebook danga ko ci fekk wala boog danga ci lu bare boog ye ba rukkoox mooy lan rukkoo ci sharia mooy sëgg jël say loxo teg ci say bëti óom daldi xool nag fi nga xam ne moy say diggante tànk yu xam ne bu dee góor doo ko naj waaye doo ko ubbi itam bu mu ëpp da koy def rek mu nekk loo xam ne boo taxawee normal rek nga xam ne boo doon natt wagg ya wala mbagg ya boobu da ngay yëg ne moom ak yaatuwaay ba moom ak tànk yee ñoo tolloo loolu mooy la ci gën day jigéen nag mu xaw ko naj tuuti dajale tànk yi tuuti ko day ñuy xool nag foofa nga xam ne foofa mooy diggante ñaari tànk yi daal di yuqi nag doq gi tuuti waaw bañ koo njett bañ koo yëkkati itam loolu nag balaa ñu koy def bu ñu jàngee ba pare li ci gën mooy yëkkati loxo ba mu tolloog sunuy nopp nit dal di jubalee biit loxo ya ca kanam mooy ca penku wala boog jublu ko jubali ko xibla daal di wax ne allahu akbar jëgënitam mooy fekk bañ koy wax booba ñi nga taxaw biñ ko waxee ba pare nag wàccee sunuy loxo teg ko foofu nga xam ne moom mooy ca bëtu om ya xool foofu nga xam ne itam moom la waxoon léegi moom mooy ca diggante tànk ya bokk na ca la ca boroomi xam-xam ya wax muy jamono boobu nga xam ne nit ki mu ngi yëkkati ay loxoom jubale ko penku di wax loolu muy allahu akbar baat boobu nga xam ne jotoon nañ ci jaar nañ ci dal ci waat xëy na bu kooku nga xam ne moom moo koy def da jaay fasaale ne maa ngi feddili jaam gu ma nekk ci sunu borom subhanahu wa te nangu ko maa ngi wane sama lot te maa ngi la ko tàllal loxo yaa ngi nii ma dara manuma dara awma dara awma dara itam man daal ku nangu ak toroxtaan dem wala boog ak woyofam ci sa kanam bëtam yëpp nag mu teg ko ci sa yaakaar ju mu teg ci yow subhaanahu wa taala yaay borom bi yaay xewale yaay borom bi nga xam ne yaa bind yaay borom kattan li yaay aji dundal ji yaay yaay la yëpp nga teg ko di ko ne ko man bon maa ngi nii li ma wax nun yëpp yow la waaye man sama loxo yaa ngi nii ma tàllal aw ma dara indiaalew ma dara lu ma am rek ci yow laa ko jëlee subhaanahu ko dee ñi tàllal ko nag kon ko ne ko nii loolu day feeñ ci béréb yu bare bare yow ci xunóot wax lañ ko bu ko defee loolu bon ak nangu la ak jébbalu la ak bankul la takk sa bopp ñëw jébbal ko sunu borom subhanahu wa taala nangu li nga doon mooy jàmbu lott bi jaam bu miskiinin mustakiin jaam bu boppam daa waaye ci même jamono bi yaa ngi nangu moom ne moom mooy borom bi mooy aji bind ji mooy aji xiwale ji mooy aji e, mooy feebaral mooy wér moy dundal mooy rey ban mooy lépp yow du woo lenn loolu nag nekk loo xam ne itam lu am solo la am solo la jox ko lim toog sa place moom subhanahu wa lu rëy la bu dee dëggu na ci ñun dañ koy def lu rëy la ay waaye suubu la itam nag da nga koy namm suubu ca da ca dox na waaw jamono bu nekk ñi da ca dox moo tax dañuy faral di fàttali ne doom aadama bi jullit bi jamono bu jàppee ne moom yegg na foofa la ak wàññeekum nag tàmbalee lef moo xam ne kenn mënu koo jeexal yow nga jàpp ne yegg nga ca wala lépp yaa ko yore ñàkk nga te jamono bu nekk nag jam nit ki day tuumal boppam nag yëg ni lu mu def def def deful lu mu xam-xam-xam xamut lu man man man la mu tëli bare na fuuf waaw am solo léeg-léeg bu ko defee jamono bi mu defee loolu nag ba rukkoo comme niñ ko waxee léegi di xool ci diggante ñaari tànkam di wax kàddu googu nga xam ne la mu làmboo ci ay maana bare na muy subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi boo ko waxee benn yoon mat na boo ko waxee ñetti yoon gën nay mat boo ko waxee benn yoon teg ci subhaanallahi subhaanallahi yokku na waaye boo ci tegee nag allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad mu gën a mu gën a baaxati nag waaw julli ci yonent bi moom dara melut ni moom bu ko defee yóbbu woon nga nangu goo nangu ne maa ngi nii indiwaale wu ma dara sama xol bi daa fees dell ak ragal wuute ak say ndigal wala bañ a def say bala def ay tere waaye yaakaar ju ma mu fees dell sama xol ci mbaax goo nekk nga melal ko ci yow yaay aji jéggale ji yaay aji jëlale ji yaay aji joxe ji yaay aji nangam nangam yaakaar googu laa indiwaale sunu borom subhanahu wa taala ko mu nekk loo xam ne itam lu jara ba la jara baqel la buñ fa jógee ko rek am ni ñu war a mel bu ko defee ñi daal di rukkoo ñu xool foofa yénti ñaari tànk wax naan ko subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi xam naa ne daal man ak màggati fuñ ko séntu fudut ci yow rek amut waaw fuñ ko séntu ci yow duñ ko fi gis yow rek yaa màgg moo tax maa ngi lay sant ndax imam zeynul abidin salaamullahi alayhi da ko wax afi bi lisaani hada alkal la aska ashkuruka kenn ba nu koy sant ndax looko ko rek sant war sax boo ko santee sax sant ga ko sant noonu moom sunu borom subhaanahu wa taala da nga ko caa war a santaat la may nga war nga sant ko ko defee nekk lu xam ne lu jara ba ko defee ñi daal di rukkoo di xool foofa di wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi wax naa ne benn ba boo ko waxee mat na boo ca tegee mu gënati boo ko tegee allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad bu boobaa nag li ñuy waral di wax xëdd nga kaaba ka bu ko defee loolu bari na li ci boroomi xam-xam yi jàngale waaye dañuy indi ne rek jamono bi nit ki di def loolu dafa am lum koy woo bokk na ca bi xool màggaayu yàlla ci lum mën a doon lu nekk dañ caa dañ caa war a sëgg xool ca màggaayu yàlla jëriñu ca nag xool ca màggaayu sunu borom subhanahu wa taala li fi yàlla bind muy ci mbindeefam yi lu nekk buñ ko xoolaatee sunu borom subhanahu wa taala junj def nañu ci ay junj def nañ ci ay junj loolu nag dul junj rek loo xam ne dañ koy dégg mu jeex wala ñu xool ko mu pare mu tax dañ ko wara a bu baax a baax a baax la cay njëriñ fii ñi jëriñoo ko la cay ay teggiin ak i comportement ñi jëfee ko ndig mu jural ñi fii ak fële ay njëriñ yoo xam ne kenn mënu koy natt suñu borom subhaanahu wa taala léeg-léeg mu ne la ci alquran kanaa da ngeen xoolut samawaati wal ard inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wa nahaar la ayatin asamaan ak suuf guddeeg bëccëg ni sax kanaa ba ñu ko xamee ne xa dem nañ ba xam ne jamono bu nekk am na bëccëg heure bu nekk am na guddi loolu yëpp kanaa dañ caa war da xool jàngi ca jàngee ca itam moo tax dafa am ci ñoo xam ne ñoo war a jàngi loolu mooy lan mooy biddiw yi nañuy nañuy tëddee alxuraan junj nañu ko jàngi astronomie am na ñu ko war a taxawee ñeneen ñi am na ñu war a taxawee jàngat suuf si sunu borom subhanahu wa taala dañuy wax ni digg-digg borom xam-xam yi ñooy ragal sunu borom waaye ba koy wax dafa jiital ay xeer yu xonq ak ay xeer yu ñuul ak ay xeer yu bulaak yooyu yëpp mu ñuy dañuy war a jàngi nag lan mooy mina la mina minare waaw te ci biir suuf si yàlla nun la ko fi defal lu ko fi defal tax dañoo war a jàngi pour man koy génne waaw léegi-léeg coow li bare suñu mine de pétrole ya suñu mine de gaz ya suñu mine de or ya ak ya lu tax ñeneen di ñëw di ko exploité di jël la xam ne moo ca da koom nga ndax ñin jàng jàng nañ ko dañ ko war a jàngi loolu yëpp alxuraan junj nañu ko te loolu yëpp dañ caa war a jàngi jëriñu ca waaye yëgee ci itam màggayat sunu borom subhaanahu wa taala dañ ko war a jàngi ay toog di kii rek te buñ la ko bàyyee woon nga ñàkk keneen ñàkk loolu te du solution ndax lu nekk dañ ko war a jàngi nan la ñuy jullee nan la ñuy wooree nan la ñuy ajee màkka nan la ñuy war a loolu ñëpp ko war a jàng tronc commun la war a waaye ku nekk dafa war a spécialisé ci li nga xamante ni ñun ñëpp dañ koo aajo woo te mënuñ ko ñàkk buñ ko man di jëfandikoo wala génnee ko rek wuti keneen mu ñëw def ko te ka ko man noonu fokk mu teg ci ay sart yoo xam ne mën nay ñàkkaa dëppoo ak say njëriñ yëpp ko dee màggal sunu borom subhanahu wa taala subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi da caa bokk di xool nag ci li yàlla bind sunu borom subhanahu wa mu ngi wax sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lu nekk rek danaa leen ci ay siñ ay junj ay kéemtaan ay jàng ki jàngat fi afaq lu la génne rek afaq la suuf si yeeg géej géej jën yéeg xar yéeg bëy yéeg fala yanduruna ilal ibili kayfa xuliqat wa ilal samaai kayfa rufiat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutaat xoolal loolu rek xoolal lool suñu borom subhanahu wa taala di ñu junj naan xool leen gëlëm la ci bind nan laa ko bindee tam ay njàngat yu bari yoo xam ne fi ni jamono ji jàngkat yi seetlu nañ ko ca xëy na dina xaw a gudd pour ñu tudd dara wa ila samaay kayfa rufiat jë jë asamaan ni nga ko yëkkatee bu tiim bopp wa ila ard kayfa sutihat ñi génnee suuf si ngeen nekk ci di dund wa ila jibaali kayfa nusibat ni sampi eh, montagne ak la nga xam ne moo ca nekk ci ndox ci pétrole ci gaz ci yeneen ak yeneen ak yeneen loolu yëpp ñu jàpp ne rek yàlla dafa ñu yëkkati suñu bëri rek xool ci kaw ba ci kanam ñu rëppal ko déedéet dañ ko war a jàngi dañ ko war a mu waaw nurim ayatina fil afaaxi wa fi anfusihim moo tax dañoo war a jàngi jurit yi amuñu sañ-sañ yàlla jox leen lu ne indil ñi ay koom yoo xam ne yàlla nee na wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha li fi nekk man leen koy xam ndig bare ñi toog rek di weerante di xuloo di ŋaayoo te sunu borom waxoon nañu ne bu leen fi nekk di xuloo ak a ŋaayoo ndax bu ngeen ko defee du ngeen sottal dara moo tax dañoo war a juboo ñoo war a ànd fa tafshalu ngeen sottal dara te sottal moo tax ngeen ñëw fi bu defee lu nekk ñu war koy jàng wo sa nurihim ayatina fil afaq yàlla nee na wa fi anfusikum wa fi anfusihim rek médecine yi nga xam ne moo nekk ci nit wala spécialité yi niñ baree rek ki jigéen rek la mën a jàng la ki cardiologue la kenn xamul li ci nekk ci ay spécialité koo seetaan dañ ko war a jàng waaw bu ñu feebaree faju faj suñu bopp waaye dañ koo war a xool itam xool kéemaan ak sunu borom subhanahu wa lool li nga xam ne moo ci nekk nga xam ne adduna bi yëpp système yi nga xam ne moo nekk ci biir nit ki moo nekk ci moom la jant bi di eh, eh, rayon yi muy joxe wala yi nga xam ne moo nekk ci biir nit ki moo xam nooyee waaye bala al jihaazu ak tanafusi wala appareil respiratoire wala bi nga xam ne moo yore eh, reesal ga wala bi nga xam ne moo yore deret ja wala bi nga xam ne moo yore ainsi de suite yooyu yëpp suñu borom subhanahu wa taala def ko muy benn yoo melokaan woo xam ne foo mën a dem ci adduna bi boo jàngee benn ba mën a man fay faj waaw ki nekk Sénégal bu demee Japon gis fa jigéen faj ko loolu tam day wane wala law kaana fihima alihatun illa bon la fasadata waaw ñaari yàlla amoon aduna tukki ko dee loolu yëpp war ñuy jàngal ne azamatullahi bu ñu sujootee di xool ci màggaay ak sunu borom subhaanahu wa taala sëpp ko lépp ñi dañ ko saa war a gis lépp dañ cee war a gis màggaay ak sunu borom bu ko defee ñi jëfandikoo ko jëriñu ci fii ci adduna waaye am ca itam fayub yàlla ak ngërëmum waaye di xool rek yàlla dañuy junj rek dafa lay yenduroo la ñuy xool ak suñu bët rek te duñ ko gëstu ci itam léeg-léeg mu indi jafe-jafe léeg-léeg mu indi jafe-jafe bon alquran wala boog diina lum ñu rek ay nekkut lu xam ne ay junj rek la waaye lu xam ne da war a taxaw defal ci liggéey sunu warugar moo tax lu ne wax nañu ko waaw lu ne wax nañu ko sunu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali leeral la lu ne lu ne leeral na ko ko defee mu ne doomu aadama bi jamono bi muy sujjoot wala bi muy rukkoo boobu gannaaw ba mu taxawee jàng ak liñ ci waxoon ci jàng ak taxawaay ba taxaw sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa morom li la war nga def ko lu la yàlla jox nga gërëm jamono bu muy rukkoo nag di xool li nga xam ne mooy màggaay ak sunu borom subhanahu wa taala waaye def ko ci rukkoo ba génn itam def ko ci li yàlla bind def ko ci disposition mu war ko doxal mu ngi yëgal sunu borom itam subhanahu wa taala ne ko man de gannaaw ba ma gisee lii sëg màgg màggaay lu nekk ma xool ko lu ma jëkkoon rek gis ci yow na nga mel lu ma xool gis ci sa këriñ lu ma xool gis ci sa taar lu ma xool gis màggaay man nag tey nag gis na ko tey nag nangu naa ne nag dootuma fi nekk nag di xool sama bopp nag man maay kan duuma leen di li ma gis nii kii la waaye du man mu tax lépp loo xam ne mooy rëy lépp luy njistal lépp luy bëgg ku la yéem lépp luy bëgg ku la tagg lépp luy loo xam ne day dama koy yenale jëma daane ko ci sama bakkan loolu yëpp tey diñ naa ko ndax naa ne yow doo nga la nag subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi sant la rek ma war moo tax imam mën a ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi doon ko wax ko doon wax maa lil insani wal faxr adama bi lu mu fëggee dënnam waaw lu mu ko fëggee koo xam ne awaluhu nutfa wa axiruhu jiifa koo xam ne njëlbeenam ndox la moo xam ne ku mu laal sañoo ko génne balaa ngay am jàmm sangu ko raxas ko koo xam ne boo mujjee fekk nit ñi balaa ñuy mën a waxtaan ba ta nga fa génnee ñóbbu la da xatal nit ñi gannaaw ba nga fa jógee ko bu yàgg boo fi yàggee nëpp wala boog mën nay nëpp mënee na loolu diggante boobu lu ci nit da dóor dënn te yow mënaloo sa bopp dara te nee na mënoo fexe mukk ba doo faatu moo tax itam lu am solo lu am solo la moo tax gannaaw nit ki ba mu rukkooyee noonu da ko caa nag ne ko man nag xam naa ne daal yow la man daal duuma kenn ku dul jàmm boo xam ne miskinul mustakin la yow sunu borom subhanahu wa taala ko defee buñ koy def rukkoo bu wala julli gu nekk wala bis bu nekk wala weer wu nekk wala at mu nekk bu yàggee danañ xaw tane bàyyi gis sunu bopp lu bare bare gis sunu bopp ak bëggal sunu bopp kese ñu tuddee al aniyatu wal ananiya wala boog l'égoïsme et l'égocentrisme lu gën a bare sunu problème yëpp moom la ku nekk ci ñun boppam lay gis boppam a ko tax a moom rekk lay xalaat ku nekk ci ñun itam wala même dee ci mbooloo yi yow la imaamuna jafar ibn muhammad as-sadiq salaamullahi alayhi waxoon léeg dañ koy duñ ko daba xel waaw len asabiya par far bonut nekkul doo bëgg sa ñoñ waaye asabiya far xam na la ca tëpp mooy far farlantoo mooy même ku yées ci say ñoñ moo la gënal ña baax ca weneen ci ci beneen wàll weneen wàll wala beneen groupe ba ki yées ci sa groupe sax wala ci sa mbokk wala ci sa famille moo la ka baax ca famille nangam li lu yéemaan lu lu kéemaane la ko defee itam li ñuy lor lu gën a bokk na ca muy sunu bopp la ñuy gis sunu bopp la ñuy bëggal lu génn loolu yitte ji ko war a jox di nga ko ko jox moo tax ba ba ñu xoolee ci kéemaani sunu borom subhanahu wa taala xool ci màggaayu sunu borom subhanahu wa taala ci la ñuy xamee nag dëgg dëgg dëgg te loolu dafa am sol xool yooyu mbokk yi dafa am solo amirul muminin ali ibnu abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayhi da ko daan def léegaan mu xaar ba guddi biddiw yi génn waaw weroo génn leer ga jolli mu génn kër ga dem di xool biddiw yi di xalaat màggaay ak sunu borom di xool weer wi di xool montagne yi di xool garab yi di xool ngelaw li koy romb wala bog di ko yëg loolu yëpp muy xalaat da ko daan def ba mbir ma yëgg ci moom mu daal di daanu xëm daal di daanu xëm waaw wala boog xool bi nga xam ne jëg gi nga xam ne moom la jarek lenn lu nekk muy si gis màggaay ak sunu borom subhanahu wa taala dafa am solo bu màggee ci yow comme ni koy ba di waxee bu sunu borom réyee ci yow lu nekk day tuuti ci yow waaye bu tuutee ci yow lu dikk réy ci yow bu dee réyee rek daana gisa ko moo tax dem léeg-léeg day am solo day am solo di rabbi al azimi wa bihamdi bu ko defee dootoo xool sa bopp waaye màggaay ak sunu borom ngay xool dootuñu xool bukk sunu mbir ak bopp mii nga xam ne démb lañ fi nekk barki démb nekkuñu foon tey lañ fi nekk ëllëg dootuñu fi nekkati lu fi dul sax lu fi dul sax jox ko njëb ba mu yàqal la lii sax perte la loolu itam lu mokk loo xam ne lu jar a moo tax ñu ne ko subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi waaw subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi ko defee dañuy sàkku bànneexu xol te bañ di sàkku bànneexu jëmm imaam ali alayhi salaam da koy wax ci naxjul balaaga mais nañ di fàttale li nga xam ne mooy mbugal mu sax nañ ko da fàttale ko bànneex bu dul sax waaw bànneex bu gàtt bu ñuy xool mbugal ma sax nee na dana tax ba duñu def bànneex bi nga xamante ne bu gàtt la bu ko defee bu ñu rukkooyee ba pare nag ñu daal di yëkkati suñuy suñuy suñuy suñuy bopp yëkkati sunu bopp dellu taxawaat buñ taxawee ni ah waaw kay man kay ndeke li ma doon jàpp jàpp ne lee dara la lii dara la lee dara la bi ma ñëwee nag ba gis nag màggaay ak suñu borom lu ne ma xool ko ca lu nekk ma gis ko ca sama xol bi yëgal ko suma bopp yëg naa tey ne nag sunu borom rek fi nekk nag moom rek lay jaamu nag waaw moom rek la waaw moom rek la nag lu dul moom du noonu la fi ne takku na watuma bi jël sama bopp di ko tasaare ku ne ma jox la lu ne lu ne ma jox la dara ci sama yëf am ay kilifa yu bare am ay patron yu bare am ay njàtt yu bare dootuma ko def dootuma ko def ndax suñu moo ñuy wax nii ndax kenn koo xam ne rajulun boo xam ne fii shurakaa'u mutashaakisun ak wa rajulun salaman li rajulin hal yastawiyaani waaye ngi nii boo xam ne ay patron yu dul jeex la am ku ne sañ koy digal te sañu da bañ te lañ koy digal bokkut te ñu koy digal kenn ku nekk sa intérêt ngay sàmm ndax kooku dana def dara ndax dana yem ak ki nga xam ne benn patron la am bu ko ne defal lii mu def ko bu ko ne bàyyi léeg-léeg mu bàyyi ko du yem kii dana noppale ku tudd te du te du te dana jëriñ kii nag dana sonn te du doxal doxal dara bon topp suñu borom rek bàyyi lu dul loolu moo tax bu mu yëkkati ko ne ko man nag tey même nangu naa ne nangu naa fi na rek gannaaw nag gannaaw bi ma defee lii nag sëpp nag yërdu xool lépp nag gis la ca sunu borom subhaanahu wa taala gis ci sa màggaay gis ci sa kereñ gis ak sa xam-xam tey nag maa ngi nii nag tey xam naa ne yow la dootuma ko def de dootuma jël samay mbir di ko tasaare dootuma gis yeneen yoo xam ne mat nañ man nañu nekk yàlla du ma ko def yow dong la alwahidul ahadu samat soxla woo kenn ku la dimbale soxla woo koy dend yow dong la nag yow ko defee ak ci aju yëpp nag mboolem melokaanam yi nga xam ne moo ko yeeyoo ñu jox ko ko mbooleem lu ñu tegoon keneen wala ñu joxoon ko ko te yeelut ca moom te yeelut ca moom ñi dindi ko dellu yëpp suñu borom subhaanahu wa taala ba defee nag ñi ne ah li nga wax nii ak yëgin la li nga wax nii ak bëgg-bëgg la li nga wax nii ak engagement la ndax danga ko topp ah na naa ko de ñu ne ko lu koy firndeel mu ne mooy damay tënk sama lépp li ma fonk sax rawatina muy kanam gaag lépp nag daal di ko jël ni ko këpp delloo ko fa nga xam ne fa la jógee ko woon min ha xalaxnaakum wa fiha nuidukum wa min ha nuxrijukum taaratan uxra waaw ma delloo ko ci zéro te mooy fa ma di bàyyee ko mooy sama jëmm ji nga xam ne moom laa jàpp ne dara la la nga xam ne moom la bokkal muy nature bi nga xam ne moo ma teree nelaw moo tax ba fa ma waroon a yegg yegguma fa ci suñu sama digganteeg suñu borom dama koy delloo nag delloo ko borom nag dama koy delloo mu jël ba bëni ko këpp ci suuf la ca aju këpp googu ci suuf la xam ne man nañ ko caa jàngate la nga xam ne boo ko tegee ci naturel ak yeneen yi demee noonu yëpp ci wàllu su rukkoo bu dee poog dogal ak borom bi incha allahu danañ ci dellu siwaat moom itam ci sujjóot bi nga xam ne nag dëgg dëgg dëgg dëgg comme ni ko imaam mun naa Jaafar ibnu Muhammad as-Saadiq salaamullahi alayhi waxee lu ñuy def ci julli mboolem lu ñuy ñu caay wax mboolem fuñ fay jaar ak luñ fay digle yëpp yëpp ay euh, préparation la rek maanaam loo xam ne ay laltaay la rek pour yegg ci li nga xam ne dëgg dëgg mooy julli te mayoo ko wala ko boobu bu dëppoo dogal ak borom bi comme ni ñu koy waxee na toujours la ca borom mi xam-xam yàq xorofaa yi bind bare na waaye ñun lañ ca ak a àgg moo tax ba dañuy yem jamono bu nekk rek ci wàllu yi ñu tuddee aljaanibul eh, axlaaq yi wàll bi nga xam ne xëy na mën nañ caaye amas tut waaye buñ ci déparé inna allazina jahadu fii naa lanahdiyanahum subulana ku góorgóorlu rek yàlla wan law yoon daal di la teg foo xamante ne làq la foo xam ne itam yàq dootu fa àgg yal nañ ci yàlla boole ci ñun balaa boobu fii ci rajo Moussaïr FM 93 point 2 di kàddu njabootu yonent wi di jube ci complexe imam ali alayhi salaam Zac Mbao Dakar ak ci Zahra FM 93 point 8 di kàddu njabootu yonent bi ci Kolda ak li ak mbooleem médium yi nga xam ne moom la ñu ci sunu waxtaan bi ñu leen di ziyaarewaat te jaarale ci ziyaar bi Mawlana Chérif Mohamed Ali Haydara di leen ndokkeel di leen ñaan di leen jéggalu te di leen jéggal di ñaan sunu borom mu bokk ñu jéggal yépp defar suñu mbir ci biir ak ci biti wan ñi itam dëgg dëgg dëgg ñi ca waaye suub ñi ca seeyal ñi ca musal ñi itam ci lépp loo xamante ne aw safaan la lu ñu dul ci adduna ak ci àllaaxira ci technique bi soxna Xadijati Juuf Cheikh Tidiane Diaw ak Omar Diaw ci Zahra FM ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye waaqiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu